سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى لقاء الله نيجي أم بكت أكونتان تيدي مولاي الخليفة الشيخ أحمد تجان إبراهيم نيس دي كون روكيل بباخ تي ويرو كور جيغا خمانتيني تي لاي نيك 2020 دي كو نيانال يالا مو تيوي اي اتي اتي اتي, أتي, أتي, أتي. yàlla may ko fannu guddu ak wergu yaram yeggil ay sembam yeb ci barke alquran ci barke Cheikh Tidiane nonu lañ koy ñaanale rakam joju di Cheikh Mouhamadul Mahi ibrahim Niass mi nga xamanteni mo yore walu jàng ak jàngale yore mudir nek mudirul mahad mahadu islami alhaj abdullah Niass bale ci sam kazalika nonu lañ nuyu al imaamul akbar di jami' al masjidi bi Medina bay di imam Cheikh Ahmed Tidiane سيد علي السيسي waaye tamit duñ fàtte annaatiqu rasmi bi ismil xadara di Cheikh Mouhamadou Mahi Seydi Ali Cissé buñ nuyoo ñooñu ñu ngi nuyu képp koo xamante ni doomu bàyyi la ak taalibe yi fuñ munti nekk ci àdduna bi ren nag ñu ngi ànd ak oustaz édition bi ñu ngi ànd ak oustaz Mouhamed Mounir Niang bi nga xamante ni moo nekk directeur Baye FM mu nekk jàngalekat boo xamante ni ku bu ñëpp xam la ku siw ci wàllu jàng ak jàngale la ak yeete di def ay émission yu am solo ci xadara bi di def ay fatawa di def ay muxaadara ci ay barab yu fasanti moom lañ ànd ak nii nag mu bëggoon mu wax lenn ci weeru koor oustaz ñu ngi leen nuyu di la ziare di la wax dalal ak jàmm ci fayda tijaaniya jërëjëf alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ورضي الله عن حب المكتوم مولانا أبي العباس سيدنا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه وأرضاه وعن وارث سره مولاي شيخ الإسلام وسعادة الأنام وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ اغدري لنا بهذا المحضر وتعطي بنزرة تأتي لنا بزفر شيخ بابا كان يقول لنا alxalifa comme ni nga ko waxee ñu nga jiital si néew bi yëpp bañ koo répété waat di nuyu mboolem toppee Mawlana Cheikh al Islam waaye di ndokkeen mboolem jullit ci ñëw li nga xam ne mooy ramadan di weeru koor bi nga xam ne nii lu am solo la nga xam ne tey dana bokk si lu ñu waxtaanee astuut loo xam ne xam-xam bi néew na lool waaye ñu wax ci loo xam ne dañ ko laaj biir jaamu yàlla yi di ko gërëmee nag faydatu tijaaniya bi nga xam ne seen liggéey ak seen taxawaay ci pays bi kenn mënu koo naatable ndax dama ne dëgg yàlla fépp foo xam ne Cheikh al Islam mu fi doon yàggale mission bi tey fayda Tidiane yàgg na fi ci ay image ci ay bind ci ay vidéo yooyu yëpp mu nekk loo xam ne itam ci seen modest jam euh, jëmu ji nii moo tax dëgg yàlla ndax li ngay liggéey xam nañ ko ndax ñoo dëkk ku dégg bëccëg ñooy nekkandoo ci lépp waaye loolu lépp di wax rek na la euh, bàyyi waxoon rek ñi nga xam ne nii liggéeyal nañ ma am nañ li nga xam ne mooy texe am nañ li nga xam ne mooy alal te alal nag bu ko nit ñi waxee dañ yaakaar ne mooy xaalis rek waaye du loolu barke sax alal la waaye li nga xam ne sax mooy teraanga sax alal la teraanga rek du xaalis rek dëgg yàlla yàlla may wér-gu-yaram sax daanaka teraanga la yooyu yëpp mu nekk yoo xam ne tey waxtu woo ko ñàkkee rek comme ni ko xadis waxee rek ci nga xam ne ci nga xamee importance ak euh, Cheikh Babacar macha allah oustaz ñu ngi bëggoon ànd ak yow ci li nga xamante ni mooy koor te ku wax koor koor mu ngi nekk ñeenteeli ponk ci diinal islaam loolu tey bu ñu laajoon koor mooy lan lan nga ñuy wax mm-hmm. comme ni nga ko waxé rek koor bokk na ci ponk islam yi juróom ginaaw bo xamé ne sédé nga ne amul benn bour bu ñu war a ci dëgg te nañ koy firee firim zahir ma euh waye tam euh bolé ci li nga xamné tam moy yunus sallallahu alayhi wa sallam amul maanaam bindeefu yàlla la way yonentam la ñaa muy benn euh la nga wara a def moy taxawal julli juróom waaye joxe li nga xamné moy azaka la ci top mu ñentelo moy euh war wër ko waye lan ci topp moy lan moy xajj mu nekk jaamu yàlla boo xam ne nii jaamu yàlla bu am solo la xam nañ lim làmbee ci ngëneel xam nañ lim làmbee ci ci nga xam ne mooy mbaax waaye li nga xam ne itam mooy payam yàlla ndax ci ayaat yoo xam ne ni bëri na boole ko ne si yàlla dina am kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ayaaman maadudaat mu nekk ay fan yoo xam ne fan yu limu la waaye tam ci bëri na ci ki nga xam ne nii moom la yàlla may tawfiix muy muy bëggee li nga xam ne mooy woor waaye lu néew la ci nga xam ne yàlla itam def na ko xolam mu nekk xol boo xam ne nii dana dana bëggee jaamu yàlla rawatina koor ndax koor dafa nekk loo xam ne nii tey benn bu ñu xool ci wàllu scientifiquement rek li nga xam ne noonu lay def ci jëmu doomu aadama bi mu ngi mel ni autovidance yow même vélo bi nga yor sax muy jakarta bi wala boog scooter boo mën a wala oto tey dana toll foo xam ne te huile bi nga xam ne moom lay utiliser da ko da ko génne pour mën ko vider pour mën ci defaat leneen ak leneen yooyu yëpp tey ci côté Euh, wérgu yaramu doomu aadama euh, ak yu bàyyi ñi ci wax loolu tax waaye loolu taxu ñoo jóg li ñu mën a wax rek mooy koor dafa nekk lu am solo oustaz comme ni ko yàlla waxee subhanahu wa taala sooru Baqara ne euh, farataal nañ ko ci yéen comme niñ ko farataale woon ci ñi leen jiitu woon hmm. waaw mu nekk ay fan yu lim fan yooyu nag dafa nekk nit ki waxtu woo amee ne ni amoo ngànt rek koor googu noonu da koo def te ngànt yi nekk na ci benn muy tukki wala boog feebar Euh, xëy na sax duñu dugg ci détails yi nga xam ne ni moo waral jamono ji nga xam ne mooy ay di jàmbat ci wàllu li nga xam ne mooy euh, euh, coronavirus bi nga xam ne moo dugg ak actualité tey liñ ci wax ak koor gi yëpp nit ñi ngi ko doon wax waaye loolu oustaz yow mi jàng xam ne ne xel wuutoon ndax feebar boobu noonu feebar ndax tey feebar boobu noonu ñëpp la am na ñoo xam ne tey corona léegi lañ ci am te ñaata ñaata million la ñaata million àdduna bi ñaata million personne la te tey ñim dal ba léegi nii mën nañ ne tey bu yeme ya matee deux millions ci la yem تبارك الله كون مو نيك لو خامني ني لول بنين افير واي لي ني مانا واخ ريك موي با تي حديث صاح امنا يونس صلى الله عليه وسلم بن حديث بو خامني كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وان اجزي فيه جيف دوم ادم بام ييبام مو ني بوكو ديفاي موم لا نيال بام ديس لن سا ني ديغلو باخ موي لان موي كور مو ني كور من يالا من لا نيال تا ماكاي فير سون بو مو ني وصيام جنة مو ني ليغا خامني موي كور تام باك فإن كان يوم صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما كن إذا أفطر فرح آه، بفطرته وإذا لقي ربه فرح بصومه. كن أصحل loolu حديث naa ne مولانا la الإسلام indi na ko ci baam gi saa su ne xale yi sax mokkal nañ ko mbir na bàyyi xanaa ñun mag ñi xam ne suñu xel dafa naqari sax euh, xel bi léegi yaa ngi xalaat dépasse wala leneen leneen da ngay dem ba léegi dootoo mën a mokkal waaye xale yi sax léegi mokkal nañ xadis boobu sa salaade mu ne li nga xam ne mooy koor mu ne pakk la mu ne kenn ci yéen bu wooree benn bés boo xam ne ne defut ci maanaam defut ci yoo xam ne ni ay yenn yi ci ayu ñaawteef la même boo demee ba xam ne sax Oustaz Babacar mii mu niiru daf ko saaga bu mu fayu na ne man kat damaa woor waaw yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mu ne maa ngi gëñ ci sama bakkan ki nga xam ne bakkan sama sama bakkan ci loxoom la nekk mu ne li nga xam ne mooy xetuk aji aji aji aji woor moo gën a teey li nga xam ne nii mooy misk te xam nañ ku ne xam nañ parfum misk ni mel ci yàlla mu ne euh, ca yow euh, maanaam mbir euh, waaw ateebu indallah yowmal xiyaama réew mi yowmal xiyaama maanaam xet boobu noonu tey li nga xam ne mooy réew miski boobu noonu ni ñu ko mën mooy tey parfum lu muy neex neex neex xam nga mënut yem ak gémmiñ goo xam ne nii léeg rek da ngaa da nga nga da da da nga toog xëy na fanaanoo loo xam ne nii tey maanaam même même bu fekkee ne sax da ngaa da ngaa borosoog nga borosiwul yëpp tey xet goo ngay am du naqari goo nga xam ne tey man su ma ko su ma xeeñee dafay beneen xet la may jox xam nga dafay naqari ci yow waaye mu ne moo gën a teey misk ca yàlla subhaanahu wa taala mu ne aji woor sax am na ñaar yu nekk ci moom mu ne waxtu woo xamee ne nii yaa ngi waxtu woo xamee ne yaa ngi dog bañ tegal la michu yeeg ñoom seen affaire yi nga xam ne mën naa ne jaañeen yeeg ak faaleen yi bu ñu ko tegalee ni ñuy kontaanee sama xel dem ci Massayer Fall ak Baye Marie Diagne waaye am na beneen bu ko gën a neex mooy ban waxtu boo xamee ne dajee nga ak sa borom xam na yool boobu nga xam ne mu ngi la war a fay ci koor gi nga xam ne def xadis la boo xam ne nii euh, Buxaari Muslim ñoo ko solo. oustaz ndax foofu la yem. maanaam daal su ma déggee bu baax maanaam xadis bi. Euh, nit ku or daal xeeti gémmiñam moo gën a foor xeetu miski loolu la bëgg a wax dafa mel ni loolu la mën a loolu la bëgg a wax loolu la bëgg a wax te xam nga nee naa miski ni mu mel tey ci par par euh, xeetu benn xeetu par euh, parfum la ci neexaay hmm. la koy la koy la koy wax lañ koy tëkkale hmm. lañ koy tëkkale ñëw ci benn xadis boo xam ne yoonu sallallahu alayhi wasallam wax ne inna fil jannati baaban yuqaalu lahu rayaan hmm. boo ñëwee ci aljana am na benn bunt bu ñëw rayaan ah mu ne yadxulu minhu saaimuun يوم القيامه ني خا نيو وور نيو فاي نيو فاي دوغي لا يدخل منه احد غيرهم امول كنن كوفاي دوغي كود واي ووري يعني سي الله بوله يقال اين يقال اين الصائمون ما بس كرام مام دانيو انا وور كدي انا وور كدي فيقوم ني دار جوب نيو نيب من لا يدخل منهم احد غيرهم امول كنن كوفا في كو بوغا بروخ لول تام ميغي ملني في رك ني وور جورناليست nga بوغا بروخ لول تا يورو كارت كارت بريس دنجنال هي سما واجي بوكو سي من فاذا دخلوا اغلق واو آه. maanaam euh, euh, bu boo waxtu woo xamee ne nii rek euh, buntu ba dugg nañ rek buntu bi moom day mel automatique day tëj day tëj day tëj te ñen ñoo ciy dugg mooy ñi nga xam ne ñooñu wax mu ne fanan jaru xale min ahadu to xam nga lan li muy tekk ci arab mooy neefa ak jamais maanaam duñ fa dugg mukk abadan képp ko koo xam ne ni wóorul ñoom rek ñoo fay dugg ñi nga xam ne ñoo doon wóorkat mu nekk ne tey oustaz kon loolu rek لما كوي تبان الحديث بلما كوي تجي تقولي بابنا من سامة رمضان إيمان الله تسامة غفر له ما تقدم من زمبي جسنا إن شيء حديث بوخم ذكر رواية بخاري ومسلم لا يونس الله يسلم ويا هني كوخم نرجع ور ور كور واي بن كوي دف يان كوي دف نيركم يلا والحساب سبب من أي دنيا جعل لجيت وان سي بكار يين خم دني مم مادام لجيت وان سي بكار وصاف لورك تفنان لورك تي تي تي تي وهم الجنة جوية واي ndax tay nit du aljana du jéggal nañ mu jéggal nañ lay say bakkar wala ci yermane yàlla te yermane yàlla moy jéggal nañ sa bakkar waye tam bu du dara rek waye li nga xamné ni moy jéggal njéggal rek te doom adama bi amul lenn lu muy sàkku ci ci ci àdduna ak alaxira lu du jéggal yàlla ndax kat aduna mom dafa nek lo xamné ni keur kër la goo xam ne di ko wax euh dunya baytu amalin wal akhirah baytu xisaabin al yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal comme ni nga xamee fa tabaraka ustaz bu fekkee amo benen laaj rek yi yëpp ay ngëneel la yoo xam ne nii mu ngi ñëw waaye mën na ñëw si arkaan yi yi nga xam ne mooy euh, mooy ponk yi hmm. ñu ngi ci lim yi nga xam ne mooy yéene yoon su waxoon ne ne innamal amalu bin niyaat wa innama li kulli mri'in ma nawa gis nga yéene rek mu am solo islam maanaam yontu nee na jëf yëpp mu ngi aju ñu ngi ko lënkaleeg li nga xam ne mooy yéene doomu aadama bi li mu yéene rek la ko yàlla jox ndax olof sax ñëw na yéene néeg la borom moo cay fanaan ñaare mooy al imsaaku anil muftaraat kal ak léeg yu demee noonu maanaam wa bi wala wal jumaa affaire yooyu maanaam tey su mel ñett yi nga xam ne ak yu yu mel noonu maanaam jàpp bàyyi bàyyi lépp loo xam ne ni mën na laa dog loolu mel ne lekk ak naan waaye ni ñu dañoo yaakaar ne bu ñu woo rek moom mooy lekk ñàkk naan def na xëy na dana ci ñëw ci biir waxtaan waaye ak yu mel noonu bu ñëwee ñetteelu mooy jamono ji nga xam ne yaa ngi koy def jamono ji mooy la min tuluil fajri sadiq ila gurubi shams waaw mooy jamono ji nga xam ne nii li nga xam ne mooy fenkook fajar gi nga xam ne fenk fa fenkook fajar googu noonu avant ñuy wax euh, euh, asalaatu xayru mina nawm da ko commencé boobu ba jamono ci yi nga xam ne ñi ngi ñi ko gisee ci jamono yi wuru bu shamsi jant baa ngi waaj a so la bu fekkoon dañoo woor tey mu ne la ci des tey motatu sax quinze euh, trente minutes wala une heure de ñaareel ba mooy li nga xam ne mooy ki nga xam ne moo war a woor oustaz mooy muslim kon buñ ne muslim moy kan yeufa day génn al albaaleex moy majeur kon xale da fay génn dafa ñu ne xale bu wor way bu ko défé ngir lan ngir tam ko parce que yonent bi wax ne digël leen seen doom ñu julli buñ amé juróom-ñaari dor leen leen ci julli buñ amé fukki at sa defe naa loolu bu ko don topi mag ñi amna mag ñoo xamné xana xanaa kon dañ né rey ci ñaka julli mu ne al aqil wa ka al al al muslim al baalik al aqil julli ngay doon waye da ngay majeur da ngay am xel dof day génn al qadir ala siyaami الخالي من الموانع كالمسافر والمريض والحائض والنفاس والنفساء ما نام تاي نيغا خامني كيغا خامني جوليت لا نيك ماجور ام خل من ام كاتان بو خامني ني من نكو مانام بو فكي ني ييما ليم سي نيكوت تي موم غالون كور كو موي لان موي nga آه، nek آه، aji tukki wala bo nga nek aji febar wala bo nga nek aji mbeureuk wala bo nek ko xamne dafa dafa wosim bes kon yi ni mooy ñi nga xam ne ni ñoom boobaa du leen war mais daal pour ki nga xam ne mooy jullit bi na nekk jullit d'abord waaye na nekk koo xam ne dafa majeur na nekk koo xam ne dafa am xel waaye na nekk koo xam ne dafa am kàttan ay ngëneelam bëri na am na fawaid ruhiya ah am nañ fawaaxi fawa fawaid nafsiya fawaid jismiya xëy na yooyu dañ ciy tënk rek lu ci mel ni fawaid ruhiya wax na ne yujadu fi nafsi milkatun taqwa allati hiya min aadami asrari sawm maanaam doomu aadama bi sa sa bakkan sa jëmmu daf ci am loo xam ne nii benn pour benn waaju am kàttan ci ci ci ci di doxal seen mbir mel ne maanaam ni ñu koy waxatee mais mel ne euh, commande commande boo xam ne ni muy euh, ni muy commandé télé di toxale ko toxal noonu lay mel sa jëmm ci mu ne kooku noonu tey la koy làmboo mooy benn bu jëmale la ci lu bon wala benn boog mu jëmale la mu wala boog mu jëmale la ci li nga xam ne nii mooy safaan ba kooku noonu nga xam ne tey pour nga woor euh, ni muy métti métti métti da nga koy def ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala ndax xam ngeen ne xiif yombut mar yombut maanaam bañ ñu sëy ci ñu ko taan am na ñoo xam dañoo feebar yombut ñàkk bàyyi ko yombut wala yeneen a yeneen waaye yooyu yëpp ñu teral ko bëccëgu weeru koor dafay nekk loo xam ne nii kon fokk rek li koy lu koy euh, li koy gën a def rek mooy nga am li nga xam ne mooy taqwa waaw ba léegi dana yuawidu as-sabra wa yu wa yuqawil iraada maanaam nit ki dana gën a amee ak iraada waaye itam li nga xam ne ak muñ da nga ko man parce que yi ma la wax yëpp muñ la laaj oustaz ba léegi yuwaidu euh, yuawidu euh, euh, dabtu nafsi wa yusaidu alay maanaam dabtu nafs mu ne nga mën a maîtriser sa bopp waaye nga xam ndax ndax nit ki pour nga maanaam raw ci àdduna li lay gën a dimbale mooy nga mën a dabtu nafs ci lu mu mën a doon rek bu ñëwee nga mën a moom moom moom sa bopp yoon salaasam nga wax ne ليس الشرير بسرعه انما الشرير من يملك نفسه على الغلط نيكي في ني خامي غور دغ موي كي خامي بو مéré waaye maanaam fa nga war a mën a réagir nga téye fa sa bopp boo meree mën a téye sa bopp lu métti métti nga mën a téye sa bopp lu jafe te loolu lépp koor dafay ñëw di ko def gis nañ itam fawaid ijtimaaiya ci wàllu social oustaz bëri na ndax nit ki yoo abidul muslimin an nizam wal ittihad danañ sa lekk boo doon lekk fukk da nga ko wàññi ba muy juróom wala ba muy ñett waaye itam jàppaloo tey loo am fii ni tey même bu dul koor mën nga ñàkk dimbale mu niir waaye bu koor ñëwee rek da nga a sàkku pour gën a mën a dimbale nit ñi pour mën a gën a am tuyaaba euh, ba léegi yan suro wal wala musawar bayna muslimin gis nga tey bu ñu war ñëpp ñooy yem ci xiif amul kii patron la wala ka fekk doguñu ci lañu door a xam suñu différence ñu neen mu ne ñetteel ba mooy lan yu kawinu minal fil mumina ar rahma wa yunammi suluka al hasan dana tàggat waaw dana tàggat nit ki itam ci li nga xam ne nii jullit bi ci yërmande waaye tam mu mën a màggal li nga xam ne mooy jikkoom ju rafet kon xam naa oustaz yii nii du ñàkk yeneen waxtaan xëy na dinañ ci ñëw waaye wala kulli xaalin ñu ngi ndokkeel mboolem ñi nga xam ne umma islamiya di ndokkeel ñu xam ki nga xam ne mooy suñu xalifa al moo Mawlana Cheikh al Islam Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu koy ñaane yàlla ci góor góorgóorlu bi nga xam ne mu ngi koy def gis ngeen dimbal bii ba kii de moo dimbale ak ñi nga xam ne Mauritanie yi nga xam ne noonu ñibbi dem ba Rosso moo dañoo jàll mu jël ay xa millions jox leen ko dimbale leen ko ak li ñu dimbale jaamu yàlla fii ci dëkk bi kon ñu koy ñaanal yàlla di ñaanal ki nga xam ne mooy Cheikh Madoul Mahi di ñaanal Cheikh Mahi Cissé ak naata ko rasmi waaye li jiitu loolu di jaajëfal di sant magam bu baax Cheikh euh, Imam Ahmed Tidiane Cheikh Sida Ali Cissé di ñaan yàlla dëgëral ko moom it taxawal jumaa ji ah saat nag di wax ne na namm a jumaa yi loolu ak jàkka yi waaye nag comme li ñuy waxee rek il faut que rek ñu jël li nga xam ne ni mooy tawjihaat yi nga xam ne ni atibaa yi jox nañu ko mm. bu ko defee muy merci ñi ñaan yàlla wawaa bi nga xam ne moo fi nekk muy pandémie bi yàlla jëlee ko fi ci gërëm fayda tijaane bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu barhaamu baun waraun alifun thumma ha mi mun mujjël faydu jox ñu ñuy naan